Sëñ Tall dafa am foofu musiba naaru lay la mais nañu bàyyi di accuser xale yi naan ñii bëgguñu lii dañuy xar xaruwuñu ñoom dañoo bëgg dara xam nga bu njëkk soo ko xoolee gis nga danaa wax benn affaire boo xam ne bu am solo xanaa xamoo ne bu njëkk ñi nga xam ne ñoo jëkk tabax ci dakaar fii mais fan lañu demoon immigration mais dañ demoon Côte d'Ivoire ñii dem Congo ñii dem ka ñii dem ñii dem Guinée Conakry ñii dem ñii dem Maroc dem wuti di liggéey ñun tam suñu dëkk am ñu bari ñoo xam ne dañ fiy ñëw di si donc noonu la àddina bi noonu la donc nañu bañ a bàyyi xale yi nga xam ne dañ naan dañuy xaru xarawuñu am na jafe-jafe yoo xam ne am nañ ko gisuñu bunt ñu yaakaar ne muñ ko wut li nga xam ne moom la ñu war a wax mooy lu tax tey tubaab yi taxawal ay kuréel yoo xam ne ñooy puus nit ñi ba xale yi di dugg ci ay trafiquants ñu leen di nax te ba pare affaire bu grave moo ci ne tey am na ñoo xam ne dañuy trafiquer doomu aadama yi di nangu di jël seen cër di ko jaay donc loolu du question loolu nag nekk na loo xam ni vraiment nanguwuñu ñun li nga xam ne am na tey ci ci Melilla condamné nañ ko nekk na loo xam ne baaxul te dafay indi ay musiba day indi ay ay boddi ci kaw xeet nit ku ñuul yi ñu leen di def loolu di leen bës di leen dóor di leen wéq mais loolu musiba naaru laay la tey ñun ñëpp réew yëpp war nañ ci wax ñun société civile ñu ngi ci wax réew yëpp war nañ ci wax ñu ne lii waratul am waratul am parce que bu fekkee ne doomu adama yi defuñu attention ñuy gis leen na ñu koy def sa nit da ngay ragal leneen di am donc moo tax ñun ñu wax ni Euh, warul am nañu seet daal loo xam ni tey Union africaine CEDEAO SADC COMESA ñoom ñëpp ñu wax ci affaire mel ni que lii bañ a amati.